alhamdulilaay may sant yàlla julli ci rasul xayri xalqilaay yaay gën ci mbindeef rasul alhamdulilaay may sant yàlla julli rasul xayri xalqilaay yaay gën gi mbindeef Mamadu Rasul alhamdulilah may sant yàlla julli ci Rasul xayri xalqilaay yaay gën gi mbindeef Mamadu Rasul mu nga juddoo Makka fiiru Madina Mamadu Rasul xayru xalqilaay yaa gën ji mbindéef Muhammadu Rasul alhamdulillah may sant yàlla jëlee ci Rasul xayru xalqilaay yaa gën ji mbindéef Muhammadu Rasul jirim la ci baay jirim la ci yaay teel a ñàkk maam teewul bur yàlla def la ngay ngëneel muhammadu rasul alhamdulilah may sant yàlla jëlee ci rasul ay xalqi laay yaay gën gi mbindeef محمد رسول أحمد أسمان محمد تشوف لمين تقريش رسول تي يلا يلا لجاقليل محمد رسول الحمد لله ميسمت يلا من رسول خير خلق الله يا جنج من دير محمد رسول دم غار حيرا ديويت يلا بجبريل نيو nan la yaay rasul jàngal sa borom muhammadu rasul alhamdulilah may sant yàlla julli ci rasul xayri xalqilaay yaay gën di mindeef muhammadu rasul fukki at ak ñett ngay samp tawxid ngir jëmmal pas-pas yow yaay gindi jaam jëmee ci borom Muhammadu Rasul alhamdulillah may sant yàlla jëmee ci Rasul xayri xalqillaay yaa gën gi mbindéef Rasul sànni nañ lay xeer damm nañ say bañ teewul nga bàlleen yaay gën gi mbindéef yow yaay لله محمد رسول الحمد لله أي سنت لله قلت رسول خير خلق الله يا جاني من قيف محمد رسول دينتين جميل قدم أسمان سيتي سبرم يبو سجم جلوس تشوف محمد رسول الحمد لله من سمت الله جلتي رسول خير خلق الله يا جنج من ديف محمد رسول دينا جميل بدل ونك يوم كندو بند جام يلا لا جاكليل تخلى أن جميل محمد رسول الحمد لله من سمت الله يليش رسول خير خلق الله يا جنج من درف محمد رسول بلما تجني مدينة فتلا محمد رسول يلا لا تنال كم تنال غير محمد رسول الحمد لله ما سنت يلا جليك يا رسول خير خلق الله يا جنج من دين محمد رسول خريب بدر دان خريب خندق دان لا إله يا سيدي بشر نار أمينة محمد رسول الحمد لله ما سنت الله julli ci la sol xayri xalqi lay yaay ngam ñi mindeef Muhammadu Rasul doy na ci ngënil bur yàllay julli malaaka julli te naan yéen ñi gëm ànd leen julli ci Muhammadu Rasul alhamdulilah may sant yàlla julli ci Rasul xayri xalqi lay yaay ngam ñi mindeef Muhammadu Rasul yàlla la teral يلا على مكل يلا على سرقل تخلى أي جنين كم دوت الميجام مما يرسل يلا على يلا على مكل يلا على سرقل تخلى أي جنين كم دوت الميجام مما يرسل يلا على يلا على مكل يلا على سرقل كخلا أنجنل إمدات الميجا محمد رسول يلا لكال يلا لكال يلا لسنقال كخلا أنجنل إمدات الميجا محمد رسول يلا لكال يلا لمكال يلا لسنقال joxu la ay ngëneel ki mu dootul may jaam muhammadu rasul yàlla la gërëm yàlla la màggal yàlla la sagal joxu la ay ngëneel ki mu dootul may jaam muhammadu rasul ku la tooñ yow nga baal ku la ñaan nga may ko muhammadu rasul borom xol bu laab day bari yërmande Mamadu Rasul yàlla la teral yàlla la màggal yàlla la sargal jox la ay ngëneel yu mu may jaam Mamadu Rasul xamul woon nelaw ngir jaamu yàlla ki kay mooy lami su jootak ruko bay woomam neewi Mamadu Rasul. yàlla la teral. yàlla la màggal. yàlla la sargal. jox na ay ngëneel. yu dootul may jaam. Mamadu Rasul. ëllëg bu mu teewee. ca kanam yàlla. boo waxul mu ñaaw. yow yaa yaram mu jaam yow yaa di soppeem Muhammadu Rasul yàlla la gërëm yàlla la màggal yàlla la sargal jox nga ay gëneel ñu dootul may jaam Muhammadu Rasul yàlla la yónni ci bépp mbindeef nit ak ki jinne ngir nga yërmande dunya ak laaxira Mamadu Rasul jalaala leeral jalaala magal jalaala sagal jox la ay ndoneel yu dootul may jaam Mamadu Rasul feeñoo ci télé waxoo ci rajo génnoo ci journal gëstur dootul fay yàlla la siiwal Mamadu Rasul. yàlla la teral. yàlla la màggal. yàlla la saragal. jox la ay njëriñ. yu dootul may jaar. Mamadu Rasul. fii ñoo ci télé. waxoo ci rajo. génnoo ci journal. sa tur dootul fay. yàlla la siiwal Muhammadu Rasul. yàlla la teral. yàlla la màggal. yàlla la saragal. jox la ay njëriñ. yu dootul daawul lekk wéet daawul jur mbindeef du xatal surkaam du bodde du xaste hayyin layyinun Muhammadu Rasul yàllaa la teral yàllaa la màggal yàllaa la sargal jox na ay gëneel ñu mu dootul may jaam Muhammadu Rasul demal Amérique mbaa nga dem Europe dem Océanie fépp ci dunya foo nekk dégg fa Muhammadu Rasul yàlla la teral yàlla la màggal yàlla la sagal jox la ay ngëneel yi mu dootul may jaam Muhammadu doo wax ci bànneex loo wax moo ko wax muhammadu rasul yàlla la teral yàlla la màggal yàlla la sargal jox la ay gane yu dootul may jaam muhammadu rasul bay mbay doon la ni takaaya nin yënga xotti asamaan arsa kursiyu yépp jaayandoo ngir Mamadu Rasul jalaala teral jalaala ragal jalaala Sénégal jox na ay jone ñu dootul may jaa Mamadu Rasul bay mbay doon ni tarxaaya nin yëng xotti asamaan arsha kursi yu yépp yëngoondoo ngir Mamadu Rasul yàllaala teral yàllaala magal yàllaala sagal jox la ay gënge yum dootul may jaam Rasul na ko yàlla gërëm dolli ko ay leer bay mbay dondo mbay yow yaa nu jàngal lu ñu wax ci yonent Muhammadu Rasul jalaala beral jalaala màggal jalaala sargal jox la ay gëneel li mu doon may jaam Muhammadu Rasul jalaala sargal jalaala màggal jalaala sargal xula ay ngëneel kim dootul may jaam Mamadu Rasul yàlla la teral yàlla la magal yàlla la sagal jox la ay ngëneel kim dootul may jaam Mamadu Rasul salaatu salaam bawoo ci yàlla te jëm ci Rasul lambaale saabam lambaale ñañam Mamadu Rasul yàlla la teral yàlla la magal yàlla la sargal jox la ay ngëneel yi mu dootu may jaam Muhammadu Rasul asmaalik yaay kenn diine singaari yow lanu wooloo asmaalik yaay kenn şöldü gırlo Asmar yay genudine Singar yavren uvala Dünel medine çirevmi Deyel firer asafarlo Asmar yay genudine Singar Cetlong Ayai Jerudine Singayaran Wara Lakambale Chanakaro Paiko Diwar Di Chalerlo Amai cerew ma nga fugulloo amaane yaay ca xeer wa qabooloo amaari ay tenu diine ci ngaari yow lanu waaloo mu dem ba kaaba ga ñaanal faraas ca geer ba mu jeexloo يخدفنا لولو مرأسنا يروايم جفم يفي من تسولو لأصل 멈추어 솔로 아마리아 게누딜레 싱가리아울라누와라 마타하나 꾸이라이 땅캄 땀 라솔 다코 베블로 아마리아 الشيخ جل طريقة تصار في الشيخ لديلو أخبار يا مدينة سمعار يا الوالو صلاة الفاتح ما خم لمود خلبة التيلو أخبار يا مدينة سمعار कमु सला चुल सच دون خلبتك مخملي كوكبالي سنس رسول أم فضيلة لي الجنوبين شنغالي أو كنورا مقاملي كوكبالي سنس رسول أم فضيلة مقاملي كوكبالي سنس رسول أم فضيلة مخي تبال جباتم ستوب رسول با لدايلو أسمالي يا كنو سيالي يا رنوالا مقيت بايا جباتا مود خيت بايا جباتا ستوب بلا دايلا جندل موال شريعة جندل حقيقة وكيل ro asmaniya kemdina sinariya danwar موجود بالموال شريعة وجود بالحقيقة موجود بالموال شريعة جند الحقيقة وجود بالموال شريعة جند الحقيقة موجود بالموال شريعتنا الحقيقة وكيله لسان حالتك موضوعتي مقال تكفيله أسمعي خيك لدينك ناري يوم يعني لسان حالتك موضوعتي مقال تكفيله महाल जेको मकाल जेको सूलो يوم لسان حال مثينا وجيج مقال فصولا ستم يباخي كفيتل يلا فيلين تلولو أسمالي يا كنودين سماري يوم ستم يباخي كفيتل يا fay leen ci loolu sagal samaam loolu aayul ki doom ju baax xam nga loolu asmaani yaay kennu diine si ngaari yow lanu woon yéen sagal si maam yi loolu aayul yéen sagal samaam loolu aayul yéen sagal samaam loolu aayul sagal samaam loolu aayul kuy doom ju baax xam nga loolu te boo nawee maami jaambur te yow sa maam gën ko farloo. maali yaay kennu diine maali yow lanu wooloo. te boo nawee maami jaambur te yow sa maam gën ko farloo nga wone sa maam nga mu farloo. gi desu cur su مموج سينتي مموج سينتي ممشدي أحمد ما تسلمي ممشدي أحمد ما تسلمي سن بابا كرشي ميتي يومي مم حاجي منصور ميتي يومي مم دبخ مالدي ميتي يومي خمجيني أمن يفعل وقت بنيول بوچا دنچه جما ورسل وشير الله asmaani yaay kennu diine ndaari yow lanu woola nu ñaan borom bi mu dolli ngërëm ci ñoom te mu li xol bi ne ci قلم بندل لقلبي نحمة ودشي قلم بندل لقلبي نحمة بترشي قلم بندل لقلبي نحاج منصور قلم بندل لقلبي نحدبخ مالك قلم بندل لقلبي نحمة حبيب قلم بندل

सला सलाम न रसोलो चैसा भया की न बसा चढ़ो जी चलो